أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم القائل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ñoo ngi fàttali sunu darsa tey mooy xatta la tusbiha salaatu tarawih aada nu góorgóorlu ba julli naafila duñ ko def aada lu bare bari ci doomi aadama yi seen jaamu yàlla duñ ci jële tiyaaba parce que aada lañ ko def woor bañ a lekk bañ a naan ngoon jot nga ndogu julli timis dem jàkka ja dóor li ngay dóor say ràkk ñëwaat sama journée tey jeex na dóor naa ko pare naa ci loolu mooy aada ñun nag li ëpp ci ñun li yàq suñu jaamu yàlla mooy aada lañ ko jàppee ngénte yi ay aada la ceet yi aada la dëj aada la jaamu yàlla yëpp aada lañ ko jàppee rek tag nañ ko def mu daal di jeex fekk loolu jaamu yàlla du aada ab julit dafay màggal màndarga yi wane jaamu yàlla lañ war a def jaamu yàlla yi ab jullit daf ko war a bëgg moo xam guddi la moo xam bëccëg rawatina nag guddi yi weeru koor yi salafu saalix nekkoon nañ ñoo xam ne dañ daan jaamu yàlla ci seeni naafila yenn saa yi sax doon nañ ko guddal ci njàng yi taxawaay bi ci ruko ci sujjóot ba yenn saa yi sax buñ defee ñaar ràkk bala ñuy jógaat dañuy noppalu tuuti ndax ñu mën a sawaraat ab jullit nag dafay xër ci joxe jaamu yàlla yi bu koy def daf ci bëgg daf ci am mbëggeel mbëggeel day def defu ki bëgg tey bu ñu doon joxe ay misaal ci kuy def defu ku bëgg jigéen buy toggal boroom këram da koy toggal togg ki bëgg ndax jabar ji bu paree bu moom jabar ji bu paree jëkkër ji buy lekk mu ne sama jabar daf ma toggal togg boo xam ne kii def maa bëgg bu koy fóotal yére yi da koy fóot fóot koo xam ne fóotu ku bëgg doom ju baax bu déggal baayam bu yaru buy defal baayam dara daf koy defal defu ku bëgg jaam bi nga xam ne dafa bëgg sangam bu koy defal dara daf koy defal defu ku bëgg man a chaque jour ku bëgg buy def dara loolu olof yi wax day dem ba jeex du desal dara ndax lan moo tax du desal mooy dafa bëgg kon loolu mooy jaamu yàlla jaamu yàlla nit buy jaamu yàlla dafay def defu ku bëgg du def defu naalu naa waay naa pare waay naa pare waay naa dóor ràkk yi mu jeex non da ngay def defu ku bëgg salaatu tarawih muy julli naafile dafa am ay ngënil yu yu bëri yu ci nekk waaw bokk na ci hadisu abu hurayra mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam kaana yar yuragibu fi qiyaami ramadan yonent bi danaan xemmem loo nit ñi ci taxaw naafila ramadan ba tax dafa wax moom yonent bi képp ku taxaw ramadan naafila dara taxawul nga naafila dul da ngaa gëm yàlla ak bëgg tiyaaba mu ne xufira lahu ma taqaddama min zambi yàlla dina la jéggal sa bàkkaar hadis boobu muslim moo ko solo mu ne bim ñuy firil baatu imaanan mu ne imaanan bi ma waada allahu min althawaabi lil qaimin imaanan bi ma waada allah gëm gi nga war a gëm ne yàlla dafa am lu mu dige lan la yàlla dige ci ku taxaw naafila lan la la yàlla dig dama lay jéggal sa bàkkaar est-ce que am nan ay bàkkaar wala amunu bàkkaar est-ce que soxla nañ yàlla baal na ko wala soxlawul kon bu fekkee dana may bàkkaar ñu soxla ku nu baal yàlla ne bu ngeen defee nangam ma baal leen kon lu fi des loolu yàlla wax ñu def ko rek kon ku bëgg yàlla baal la boo reeratee ba pare ba war a taxaw kanamu yàlla di ju liggéey ne da ngay soo pare da ngay naafi la sooy def def jooju bul ko def defu na pare mu jeex da nga koy def defu ku bëgg defu koo xam ne da ngaa bëgg nu baal la tey buñ ne woon ñëw leen ngeen rang fii ngeen def lii bu ngeen paree dañuy seet ki gën a baax la ni mu ko defee moom la ñuy jël mu liggéey wala kaay leen ngeen def nangam su ngeen paree dañuy seet ki ci gën a baax la jox ko bii mu dem États-Unis d'Amérique wala mu dem Italie wala mu dem France kon bu ñuy def loolu nun koy defee dañ koy def nu mu nu neexee même bu doon bale la ñu ne la baleel fii bu setee rek lay jox billet billet màkk wala ñu jox la billet France noo koy defee di nga bale balewaat ci kawam fompaat ko fobeere ko ba pare taxaw di garder ne kenn bu mu ci jaar ndax da koy taqal lu tax ndax da ngaa bëgg ñu jox la billet bi waaw yàlla jéggal la sa bàkkaar ak billet dem France ak billet dem Espagne bu gën a fort kon yàlla bu ne bu ngeen defee dara dara bii ngeen di def bu ngeen ko defee ma baal leen te ñun bëggunu lul yàlla baal nu dañoo am bàkkaar yàlla ne bu ngeen taxawee weeru koor naafi la ma baal leen lu nu dese kon nan ko def loolu mooy imaanan bi ma waada allahu min sawaab lil qaaimin gëm gi nga xam ne da ngaa war a gëm ne yéen ñiy def lii yéen ñi ci taxaw yàlla dina leen baal beneen bi mooy ixtisaaban yaani talaban li sawaabillahi la riyaan wala suma wala talaban li jaa nit day bëgg tiyaaba tiyaaba boobu ngay bëgg nag da ngay moytandiku ngistal feeñ ci déggtal feeñ ci bëgg daraja feeñ ci bëgg daraja feeñ ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man qaama maa imaamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyaamul leyl képp ku dem jàkka di naafila nga ànd ak imaam bi ànd ak imaam bi ànd ak imaam bi ba julli gi jeex nga ànd ak imaam bi ba mu def safa ak witre yonent bi nee na dinañ la bindal tiyaabay ku taxaw guddi guddi jaamu ko yàlla ba mu jeex kutibat lahu qiyaamul layl danañ la bindal tiyaaba ku fanaane naafila ba bërsët
ɗon tawa a wadde maɓɓe hay sa hay witro non eyi ha witre o gasa da ngay def ba witre bi jeex ànd ak imaam qiyaam bi rakka yi moom jeex nga tafa nga taxaw ak imaam safa taxaw ak moom witre yonent bi nee na dañ la bindal tiyaabay ku def qiyaamul layl kon nit ñi li ñuy def léegi lu dangereux la julli ak gee imaam dem sa yoon wala julle gee imaam def ñaar raak commencé naafila bi ñaar raak nga dem sa yoon doo fekke xiyaam bi fu mu jeexee doo fekke safaak witre loolu doo am tiyaaba yonent bi dafa ne da ngay taxaw ànd ak imaam ba imaam pare ba mu ne asalaamualeykum nga doog a génn dem sa yoon su su boobaa damay laaj bu fekkente nga aj bugg ak ci vitre
bu fekkee da ngaa bëgg a aj witre bu fekkee da ngaa bëgg a aj witre da ngay ànd ak imam ba mu def witre bi xam nga moom day toog après ne asalaamaaleykum nga jóg indi benn raak yow doo wax asalaamaaleykum bu imam ne asalaamaaleykum yow da ngay jóg taxaw indi beneen mu nekk ñaar nga sëlmal su ko defee am nga deux léegi yow dafa too witre te ba pare am nga tiyaabay ku ànd ak imam bi noonu ngay def waaw su ko defee xiyaamu layli yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci yàlla wax na ci alquran tatajaafa junubuhum anil madaaji yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaan wa mimma razaqnaahum yunfiquun awa may dema laaj loolu xaar ma eggale aaya bi falaa taalamu nafsun maa uxfiya lahum min quratu ayun jazaan bima kaanu yacmaluun yàlla tabaraka wa taala nee na way gëm yàlla yi bokk na ci nge ngëneelu qiyaamul layl mu ne ñoom même bu ñu tëddee ci kaw lal yi dañuy bërëngu te tajaafa junubuhum anil madaaja dañuy wëlbateeku ci kaw lal yi même tëdd bi ñuy tëdd jaamu yàlla lay nekk ci ñoom yadduuna rabbahum ñoom duñ tëdd rek guddi di xarang ku leen bëgg a yee sax du leen mën a yee nga xam ne mën nga leen a toxal néeg ak néeg léeg-léeg nit ta- yet nelaw gaa yi ñëw ñi jàpp tànk yi ñi jàpp loxo yi diri ko ba ci biti teg ko foofu waaw léeg-léeg nit nelaw fenn benn sàcc dugg teggi ñëpp fukki nit mu mu jéggi leen tëf tëf tëf tëf tëf ñu yeewu ñoom ñëpp ah kon nit ki même tëdd bi nga tëdd day nekk jaamu yàlla tatajafa junubum anil madaaji ci kaw lal yi yaduuna rabbahum dañuy wëlbateeku di woo seen borom xawfan ragal ko wa tamaan ak xemmem ko wa mimma razaqnaahum yunfiquun li leen yàlla jox aussi dañ ciy joxe gis nga ñooñu di def lii yàlla mu ne fala taalamu nafsun ma uxfiya lahum min quratu ayun jazaan bima kaanu yaamaluun gis nga ñii li ma leen dencal hmm? xol musul xalaat neexaay bu mel noonu mooy quratu ayunin yàlla daf leen dencal loo xam ne bët musul tegu ci lu neex lu mel noonu leen yàlla dencal gaa yooyu lan moo tax yàlla mu ne jazaam bima kaanu yaamul dama leen koo fay ndax ñoom dafa am lu baax lu loon def moo tax ma fay leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na afdalu salaati baada salaati almaktubaat salaatu leyl julli gi gën ci guddi yi ginnaaw julli farata yi mooy julli guddi moo tax soo bëggee am tiyaa ba dëgg dëgg dëgg del julli guddi même loo dee dee dee dee nga julli ñaari rakk loo sonn sonn sonn sonn sax nga julli ñaari rakk ndax xalaat lëndëmu bàmmeel salli rakaatayni li zulumati alqabr jullil ñaari rakk sax ndax xalaat lëndëmu bàmmeel ëllëg yowmal qiyaamati yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na inna fi lleyli saa laa yuwaafiquhaa rajulun muslim yasalu allaha xayran min amri dunya wal axira illaa aataahu iyaahu wa zalika kullu leyl yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam am na benn waxtu ci guddi yi jullit du jóg di ci jaamu yàlla ah lu dul su ñaanee yàlla yiw aduna ak alaxira yàlla may ko te loolu nag kullu layl guddi gu nekk soo jógee ngay jaamu yàlla am na ci benn heure bu la yàlla dimbalee ba nga dajeeg heure boobu loo ñaan yàlla ci mbirum aduna ak alaxira yàlla may la kon loolu jar na bañ a nelaw guddi suñ ne woon Macky Sall day ñëw stade kenn xamul ban heure la fay ñëw waaye ku fa teew su loo ko wax dina la ko defal est-ce que duñ fa dem depuis tàkkusaan di xaar rek ba guddi gi jeex ah gars yi kon loolu mooy dars bi damaa bëggoon fekkee noo ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla defal nu tawfiq yal nañu yàlla nangul nangul leen après incha allah ku ci am question ñu jël question yi